moom moo di li fi gën a sa fës ci wàllum actualité euh, ci seen émission bi di euh, actu digital ñu si ànd ak ki nga xamante ne euh, moom moo di Vito Gaye ak ki nga xamante ne moom moo di ñaar kon lañ si daal di àndal fas yéene rek faram fàccal li nga xamante ne moom moo di actualité xam ngeen ne jamono ji mbirum politique daal na fës lool ci li nga xamante ne moom moo di ci pénc mi waaye itam dinañ ci rax tuuti lu jëm ci wàllum li nga xamante ne moom moo di lu ci mel ne Euh, xeetu scandale boo xamante ne daal dinañ ko nemmeeku fële ci ambassade bu Sénégal waaye itam euh, actualité en général dinañ ko càmbar ku si nekk rek euh, daal di si joxe li nga xamante ne moom moo di gis gisam waaye laata ñu si dugg Vito Gaye maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm encore wala tey yéen a may dalal ah. <laughs> bu baax Silla nga xamante ne moo fi daan toog di ko ñaanal yàlla fëgg boppam Vito maa ngi lay nuyu. Silla Silla dafa craqué. xam nga Sylla boobu ba tey Sylla Sylla nekk ci yëf yi <laughs> guddee guddeelul euh, bëccëgulul waaye yàlla na ko yàlla may tan ak jàmm. amiin euh, ci moto lañ ko yëpp nag yóbbu. mbaa <laughs> ma dina daanu ci yoon bi <laughs> xaw ma waaye balaa ñuy jeexal dinañ xool ndax si laa yegg na ci jàmm te faj dañ ko ci jàmm mm. eh, nuyu naa la bu baax a baax a baax Mouhamed di kontaan bu baax a baax bokk ak yow eh, plateau bi. c'est un plaisir. waaw ndax yow moom ni ma koy waxee à chaque fois gars yi na seen journaliste yi làkk français làkk pël làkk wolof waaw ñun sunu journaliste dafa dégg pël dafa dégg wolof. dafa dégg français yàlla baax na dafa dégg anglais <laughs> ziar naa la. naa <laughs> ngi lay delloo ziar bu baax a baax Vito. Mhm. di ko jaajëfal bu baax a baax ngeen di comprendant ah, moom euh, dafay daal di euh, ruube parfois. Mhm. waaye euh, lépp rek si moom lañ koy daal di roye. Mhm. kon ci wetam itam dina si feggool ki nga xam te ne moom moo di Momo Gaye moom itam ngeen ràññee bu baax a baax ci kër gi Momo maa ngi lay nuyu yow moom duma la wax dalal waaye parce xam naa ne heure ñun ñëpp ñoo ko bokk waaye jamono jii. Hmm. Euh, yéen a fi doon toog ànd ceeg Sylla maa ngi lay ziar bu baax a baax. Mouhamed maa lay ziar bu baax ziar mbokku internetu 313 digital ñu àndal comme à chaque fois ci jotaay bi ni ñu koy defee euh, waxtaan ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu actualité nuyu képp ku ñu teewlu. ñi nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew comme ni nga ko annoncé dinañu laal ci pont yu bari mhm. daal di si joxe suñu xalaat bokk ak mbokk internet yi. effectivement euh, kon euh, jaajëf euh, Momo kon ci ponk yi nga xamante ne war nañ si waxtaanee bokk na si rek mbirum élection législative yi nga xamante ne boobu ba léegi eh, ñu ngi si xayma yi waaye lii di recensement bi war a door ni ki ëllëg maanaam li nga xamante ne jamono ji eh, ci ay résultat provisoires la ñuy daal di sukkandiku daal di def kon ñu mën ci sukkandiku ngir daal di euh, def li nga xam te mooy ay analyse jëm ci xeetu assemblée bi nga xam te ne moom la ñu euh, mën a am ci euh, fan yi nga xam te ne moom lañu ñu daal di dëgmal waaye itam ñenn ñi génn di wala bokk di sàkku ci ki nga xam te ne mooy Sonko mu daal di bàyyi fële ca primature dem foofu xamante ne moom moo di ci assemblée nationale ngir jiite li nga xam te moo di le pouvoir législatif ba xam dina ko defam déet ak lan moo si war a doon nga xam te moo di le meilleur choix loolu loole lépp dinañ si daal di ñëwaat waaye kii di Moustapha Cissé Lo moom mi nga xamante ne ay jamono ràññeeku woon na lool ci làngu politique bi fii ci réewum Sénégal moom mi lee ci vote yi ginnaaw bi mu daal di nëbbatoo lu yàgg génnaat na wax wax ak ki nga xam te moo di njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom mi nag la mu sàkku si ñoom ci moom président bi moo di euh, mu jël ay ndogal sanctionné ñi nga xamante ne ñoom ñoo dem ci élection yi te amuñu li nga xam te moo daal di euh, mat 3 pour cent ndax jàpp na ne euh, loole dafay daal di indi rek li nga xam xam te moo di ay dépenses yu yokku euh, te amuñu benn représentativité ci li nga xam te moo di ci fichier électoral wala ci ay poids électoral loolee dinañ ci daal di teg itam jàngat ñoom ñi nga xam te ne ñoom ñoo daal di jëlee ay défaite maanaam ñoom la ñu gagné ci élection yi ñu si mel ne euh, ñoom Macky Sall Amadou Ba euh, Barthélémy Diaz ak ñeneen ñi nga xam te ñëpp ñàkk nañu élection yi lan moo mën a doon li nga xam te moo di ci seen ëllëgu politique ci biir réewum Sénégal taxawal milliard fële ca euh, ambassade bu réewum Sénégal nekk fële ca Ottawa loolee itam dinañ si daal di ñëwaat leeralal leen ko ba mu gën a daal di leer kon dañuy daal di dugg rek ci premier point bi euh, ànd ceeg ki nga xam ne moo di Vito euh, assemblée bob ba léegi li nga xam te moo di projection yi mu ngi wéy ñu ne Pastef lu mu néew néew daanaka mën na am ba ci 131 jàpp 132 députés foofee ci assemblée nationale ñeneen ñi soog si topp takk wàllu Amadou Ba 7 Sàmm Sa Kàddu 3 d'abord li nga xamante ne moom moo di mbir moomee assemblée bi ak na mu nar a tëddee euh, yow nga nar ko jàngatee ci dan surtout ci li nga xamante moom moo di euh, lii di résultat yi noonu nga te naa di la daal di demee surtout razzia bi waaye Sàmm Sa Kàddu bi nga xamante ne peut-être man maa ngi doon xaar ñu am lu ko ëpp waaye boo moytul trois toogu maanaam ñetti toogu lañu fa séenee am foofu nga xamante moo di ci assemblée man man. Euh, tey ci suba damaa yeewu. Mhm. bii nag moom ponk ponk ponk sama ponk bopp la moom gis sëñ Modou Boussa Dieng waaw sëñ Modou Boussa Dieng. Mhm. Euh, di def vocal <laughs> ne moom waa Touba dañ koo trahir mu dund ci Touba trahison la. mbaadu ndax sëñ moodu mhm. nee na vingt huit oto li jël ay woto yu mag ak yu ndaw. teg ko oto yi di ramasser. di yóbbu nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a voté waaye moom bu xoolee bureau bi day xool ci bureau boo de vote yi moom li mu fa am du mat trois voix <laughs> trois. te ay oto la yëpp. te vingt huit laa la wax vingt huit oto la sëriñ Modou sa Dieng génne jox ko gars yi gars yi dem voté ji <laughs> léegi bu ñu demee di voté moom <laughs> bureau bu ñu compté sëñ Modou du fa am trois voix léegi nit ñi nga xamante ne ñu ngi leen di yëpp. tàmba di leen tàmbal di leen yeb ca 7 heures du matin di jëm ak ñoom ba 18 di leen yeb di yóbbu ñu jël oto sëñ Modou Bousso Dieng yi yóbbu jël sandwich yi bu sëñ Modou Bousso Dieng yi lekk ko jël essence su sëñ Modou Bousso Dieng yi lekk ko toog ci photo yi oto sëñ Modou Bousso Dieng yi dem ba ca bureau ba voteel ku leen neex sëñ Modou Bousso Dieng nee na trois voix wala dix lay aw lay par bureau biir bureau de vote yi trois trois <laughs> nga xamante ne bu dee oto bu nekk oto ba dix places lay def wala quarante places da lay leer na ña a dem trois pour cent sax ca ña def voté luñ sëñ Modou a Dieng loolu bu nekkul trahison loolu xaw ma lan la doon waa Touba li ñu def sëñ Modou Moussa Dieng ñaaw na waaw Mohamed musuma gis ci histoire ñoo xamante ne def nañ def nañ. Vito moo yee ne dañ ko trahir. non lii ci histoire man histoire voté. Mhm. ak ci histoire mbirum voté. mbirum campagne lii moom lu ne am na fi gars yi ndax nañu gars yi jël seen oto yi ndax nañu gars yi <laughs> lekk seen xaalis waaye mais dafay sax yemamaay nit ñi boo demee di nga xamante ne ñii ñu ngi votel nañu ma sax bu dee 40 yóbbu nañ ma 10 yi votel nañu ma nga xam wala 25 yi sax votel nañu ma mu leer na ñeneen ñi <laughs> votel nañ ñeneen ñi mais ay trois voix lay am ay deux voix ay une voix ci ay bureau de vote ay une voix ñi ñi yóbbu sax sandwich si sëñ Modou bu sa yi ngeen lekk oto sëñ Modou Moussa Dieng ngeen dugg. ak yi essence su sëñ Modou Moussa Dieng ngeen ngeen ngeen lekk ngeen def lépp ba pare dem votel te te li ci gën a métti xam nga lan moo ci gën a métti mun nga ñëw toog <laughs> eh, affaire yi gam-gam la bi di bëri. léegi yow ngay dute di xalaat waa ñii kan lañu ñu sax. xam nga bu nekkoon takk wàllu dañuy am lu bëri. Pastef am lu bëri euh, keneen ak keneen am lu bëri boobu di nga xam ne ah waa yow ñi ma voteelu lii man ñan lañu ñu voteel man comprendre ma ñi ma voteel ñan la ñu voteel waaye yow dana leer na ñi nga yóbbu la jël nañ sa sandwich lekk ko. lekk sa añ lekk sa soos lekk sa lekk sa temps lekk sa wax lekk sa lépp ba pare dem voteel Ousmane Sonko moom da koy leer na ñi Pastef la ñu voteel mbaadu li gars yi doon wax naan mbaraan diw voteel bi non mais lii kenn mbaraan gi ñu mbaraan sëñ Modou Moussa Dieng <laughs> mbaraan gi gars gis lu mel ni ci histoire politique gu Sénégal lii ñaaw na lii ñaaw na mooy léegi nag Adji Sarr laa bëggoon a woo Adji Saar laa bëggoon woo yoo xam mooy Adji Saar waa doyen bi ngeen di wax. <laughs> xaw ma doyen xawma ma douanier xaw ma gendarme xaw ma lan la ci. <laughs> waaye du yow ma ne Adji Sarr nga ne doyen bi ngeen di wax. fii doyen amu fi de <laughs> fii dañuy jël mbirum doyen mbiru xawma ma yooyu yëpp tegee ko nële te waxtaan vraiment nit ku ne la nga waxoon assumé ko. nga dellu démb nag dégg naa. ñuy defaat seeni analyse ba pare ne Pastef dafa perte élection yi. ci naka. moo ma jaaxal ni man démb dama dégg xam nga man dama muus. je suis très malin. macha allah mais démb dama ko déglu dama dégg Adama Fall laa dégg ak Adji Sarr. ak Adji Sarr ñuy def seen kii di expliquer ne Pastef dafa perte élection yi mais démb lu ma muus muus muus démb damaa mujj dof démb la sama xel mi ñii dañu koo yàq ci laa toog ma xam ne déglu n'importe quoi ak n'importe kii baaxul. démb ba tey laa xaw a am traumatisme. waa da lay yóbbaale. non ñii dañu toog di expliquer ne Pastef dafa perte élection yi. mais ci ñu am 130. mais man dem démb laay sama xel mi yàqu ba tey xam naa ne ndof gi mu gi ma jëlee man seetaan émission Adji Sarr bi ak Adama Fall démb sama yaay ji fa nekk nag di Aïssatou Diop Fall lu ma koy def waaye Adji Sarr ak Adama Fall moom démb dofloo nañu ma. démb dama sama xel mee yàqu nii ba tey xam naa ne laataa émission bi di jeex. dina sama xel bi dina ñëwaat. waaye li li Touba def sëñ Modou Bousso Dieng ak Adji Sarr Adji Sarr moom dinaa bëgg naa ko invité. ci plateau waaw Touba dañoo pasteefu de ñoom 99 pour cent lay joxe déggoo lu ma la wax sëñ Modou Bousso Dieng li neex ci wax ji moom mooy. li naqari ci wax ji kon mooy bu doon da ngay laam-laamee ñii kan la ñu voteel mais xam nga ñii kan la ñu voteel yow ñi lekk sa sandwich si lekk sa daxin lekk sa soos lekk sa lekk sa paas encaissé sa 5000 xam nga bi ñu demee ñoom kan la ñu voteel. loolu moo métti ci wax ji loolu rek métti ci wax ji mais aji Sarr ak ñii traumatisé nañ ma man sama xel bi nekkatul ak man. ga gars yi ne instant yi sa xel may négligé. barke alxuraan sama xel bi dafay négligé je te parce que man mosuma gis nit ñu dëgëree fit ba mel nii toog di expliquer ne Pastef dafa perte élection yi di ko expliquer xam nga ni ñuy dof lañ ba pare bëggu ñoo dofloo ñun <laughs> ñu dof nañu ba pare mu leer leen ne ñoom. kata kay ni nañ gàddu nañ seen i dàll gàddu seen i dàll daw génn réew mee des mais ñu ne balaa ñuy dem il faut que ñu dofloo ñeneen léegi man sama genre gi nga xamante ne suñu xel yi nekkul ak ñun dañuy dem au lieu ñu seetaan lu important au lieu ñu gëstu wala ut xam-xam wala ut nagam damay wër ay dof man man damay wër dof yi ci plateau yi wala ci yooyu après di leen seetaan di énervé waaye di leen seetaan parce que di kontaan xam ne maa ngi seet maa ngi seetaan ay dof mais démb degré de gi ñuy yegg. degré ba ñii yóbbu leen dalal xel solal leen camisole de force ndax xam naa Ousmane Sonko dina dofloo ñii balaa te te li ma métti Ousmane dina leen dofloo mais ndof gi bu doon yem ci moom dinañu tourné ñun dofloo waale ñu ñun. ëpp naa de <laughs> balaa balaa deux mille kañ la yi deux mille vingt neuf balaa deux mille vingt neuf di jot incha allah. yàlla nañ ko fekkee ak jàmm. amiin Adji ak ñu mel ni moom dina ñu dof ba pare dofloo waale ñu ñun. looloo moo métti ci wax dinañu dof dof loonu parce que ñun ñoo lay ñun ñoo leen di toog di leen déglu au lieu ñu dem déglu borom xam-xam yi ñu toog di déglu dof yi dof yi dinañu dof ba pare dof loonu kër dof yi nag war noonu koo changé. déet ah, yóbbu ko ci ñoom Adji Sarr wala wala fee ñu tuddee kër aji saar <laughs> ah, yaa ngi ci jàmm. nañ nañ ko tuddee kër Adji Sarr mais sëñ Modou sa Dieng liñ ko def ñaaw na torop ñaaw na torop. aywa ah, tamit da nga ciy lii ñaaw na torop. gars lii Ousmane Sonko war na cee jóg dañ kaa nax. élection yi. <laughs> du moom kese. Hmm. j'ai écouté Abdou Karim nga vocal boobu Abdou Karim Sall. mais booboo dàq bu bu bu kii bi. Abdou Karim Sall men bu waaw bu mbaaw moom tam nee dañ koo taraay. moom nee mbaaw la mu fa def yëpp. <laughs> nee mais bureau de vote